Euh, ñu ngi nuyoo ñu ngi tudd du Sall nekk un militant de la République des valeur euh, tey ci suba comme ni ñu ko waxee léegi dañu demoon mairie de la ville euh, di wut li nga xam ne mooy certificat de résidence di wut li nga xam ne mooy extrait de naissance ak suñuy camarades yi nga xam ne wala suñu dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkk Thiès mais ci lu ñu njëkk a bett njëkk ñu jaaxal mooy bi ñu demee fekk fa agents municipaux yi dañu xamal ne ñoom li nga xam ne mooy kayit yooyu ñuy mënuñu koo joxe nekkul loo xam ne nii mën nañ ko joxe fi mu toll nii bi ñu laajtee dañu ne gouverneur moo wax le maire Talla Sylla ne bu mu délivrer ti euh, certificat de résidence yooyu et agents municipaux yi ñoo ñu wax loolu donc c'est une information à vérifier mais loolu la ñu wax nañu depuis dix jours joxewuñu parce que gouverneur moo tere ñu délivrer euh, les certificats de résidence xam nga Sénégal moom dafa doy waar ñun yàlla daf ñu nattoo ñuy politique nekk ak euh, ki nga xam ne mooy le président Thierno Alassane Sall ci la République des valeurs donc un politique mais nous étions là-bas juste comme de bons citoyens comme ni ma ko waxee et des citoyens animés de bonne foi di laajte li nga xam ne ni jàpp naa mairie moo ñu ko war a jox jàpp naa équipe municipale moo ñu ko war a jox mais euh, ci li ñu njëkk a bett njëkk jaaxal mooy dañ fa trouver équipe bu violent dañ fa trouver équipe boo xam ne nii vraiment euh, bousculer nañ ñu dóor saaga nañ te am na noo xam ne tey en tant que jeune buñ ko réagiroon euh, m na demee na jur leneen mais comme demoon euh, euh, euh, comme des citoyens modèles laaj li nga xam ne nii jàpp naa ne mairie bi moo ñu ko war a jox mais finalement gis nañ la fa mujj xew justement da jaakaar naa ne wax nga wax ji kumba am ndey la ak kumba amul ndey ñun d'après li ñu jàpp parce bu ñu toogee en ces périodes de révision li nga xam ne mooy certificat de résidence ñi nga ne ñooy citoyens yi là aussi y a problème parce que man jàpp naa ne fi ñu toll nii dañu waroon a gën a yombal li nga xam ne mooy certificat de résidence yi dañu ko waroon a gën a yombal ba nga xam ne boo demee mairie amul kii fii la far amul xaaj amul seen amul kumba am nday ak euh, kumba am nday ni nga ko waxee mais képp kuy Thiessois képp kuy citoyen boo fa demee wone li nga xam ne mooy euh, yoon yi nga war a jaar nga jaar fa danga nga war a am kayit bi ngay wut jàpp nga ne loolu yoon la voilà justement donc man bu ma demee ba war a am certificat de résidence war a def examen wala ma war a def concours ma dem ba date limite concours ma dem ñu ne ma deux jours après la ñu war ma bloqué ci concours boobu ma war ko def déwén ñu war ma bloqué ci examen boobu ma war ko def déwén est-ce que jàpp nañ ne loolu jaadu na ci équipe municipale boo xam ne tey dañ fi waroon nekk ak fi àdduna toll ak le système informatique jàpp naa ne nit warul soxla certificat de résidence déjà l'équipe municipale n'était pas là-bas woon dañu toog bi coow li bëree ci la ñuy soog a jugee seen kër di ñëw di xëy si mm-hmm. est-ce que loolu jàpp nañ ne ñun ñi nga xam ne ñoo leen fal en tant que des Thiessois ñoom ñu war a toog pour satisfaire la requête des ñu war toog ci mairie bi pour Thiessois yi dañuy xaar ba population yi dem foofu di wax seen ñaxtu ñoom ñuy soog a taal seeni oto di soog a ñëw ci mairie bi est-ce que jàpp nañ ne loolu jaadu na xaar ci autorités yi mooy ñu bañ a def euh, kumba am ndey kumba amul ndey lii nga xam ne moom la citoyen Thiessois yi di wut ci mairie bi ñu yombalal leen ko ci anam yi nga xam ne nii moom lañ ko war a amee képp ku fa taxaw indi këyit yi nga xam ne war nga koo indi am li nga xam ne nii war nga ko am war nañ la mën a délivrer sa certificat de résidence war nañ la mën a defaral sa extrait de naissance sans aucun délai mais waruñu mën a toog vraiment naan la deux jours une semaine wala quatre jours loolu jàpp naane ne du jaaduwul du dëgg du yoon justement loolu aussi euh, je le dénonce merci camarade parce que bu coow li bare man dañ ma woo personnellement ne ma naa ñëw ñu defaral ma certificat de résidence bu ko defee ma dem noppi ma ne leen man dugguma ci ay dil dugguma ci ay mbuxum dama ànd ak citoyen thiessois yi dama ànd ak population ce thiessoise bi ngir kaas li nga xam ne du dëgg du yoon kon kenn du ma corrompre kenn du ma guerre c'est les agents municipaux normalement ñoom ñoo ma ne kaay ñu defaral la après coow li jeex man leen ñëw mu fi pour coow mais dama ñëw juste pour dénoncer li nga xam ne jàpp nañ ne du yoon amoo ko nga nga yëngu ca loola. manifester na ko mënee manifester mais bu ñu jàpp ni benn coow la ñu ngi ñu ngi réglé fi nekk dafa rek ñaari euh, fi mu nekk nii ñi ngi dem ci local est-ce que jàppoo ni ñaari fan toog nit ki di ko xaar pour jot résidence am guddul. waaw ah, xoolal nit ña fi nekk ndax foo xamante ni amoon nga fa xëy na lu mat ba 50 personnes nga fa liggéey tey rotation di tax nga tànn ni xëy na car bi mooy liggéey wala ceer bi ah day ay nit rek a fi nekk aussi mais li maire wax muy instruction mooy nañu góorgóorlu satisfaire population yi fi ñëw ñu si mais na ñëpp ànd dal rek ku ne di nga am li nga bëgg dem sa kër rek am solo